siyaar naa waaw siyaar naa la waaw waaw. lu a sa teewaay. xam naa yow ku nga xam xam naa xam naa yow yow waar nga yow. Ah, mais bi waaw waaw dafa leer waaw li li waaw waral sama teewaay muy sama yaay ju baax ji. Ah, eh, eh, <laughs> sama yaay ju baax waral sama teewaay. di sama sama sama sama sëriñ la kii. mais man la gën a bëgg. non non kii man la bëgg de. man la gën a bëgg. Pawlish kii man la bëgg. man mii la bëgg. xam nga lii yaay booy na nga def yaay waaye am jàmm rek dama fay pour pour delloo xoolaat sama yaay nee naa leen man ah, simaana damay tooy fenn rek te dama ko bëgg li tax ma bëgg ko yàlla rek moo ko xam te dinaa ko gën bëgg ne Sénégal yi dama woon naa ko dama ko gën bëgg te rëccu moom boo fi ñëwee li tax ma ñëwaat fi Sénégal yi war na ñëw tiit li tax ma ñëwaat fi Dakar ni mu tàngee Dakar ni ma ñëwaat fii ndax moom mi kon am na lu yàlla def ci moom na ko Sénégal yi bàyyi nii rek ko yàlla bindee xam nga ku baax xam nga ku xam nga koo xam ne liggéeyal seen xam da nga ko ñor mi ma koy wax barki yonent lii wax xaw ma dama koo bëgg te ñëpp képp kuy nit rek te bakkan di nooy rek tey def lu baax da nga war a ñëw coow ne ko jërëjëf parce que kuy def lu baax ku mel ni romb te dafa rafet trop <laughs> ah ah waaw il est attirant boo tax tuddee ko c'est pas blanc. moo tax ma tuddee ko Sherpa blanc ni mel ni noonu la mel ma tuddee ko Sherpa blanc xol bi dafa yaatu man ba ma fi ñëwee ba ma ñibbiwaatee damaa ñëwaat danay mënal la fii mënal la fële barke yonent moo baax barke salaatul faat il est il est attirant pare il est modeste non non jarul ñaanal parce que yàlla koy ñaanal kii moo ko fexeel jàppal yàlla ko fexeel rek parce que kuy def lu baax du joxe lekk ñu nekk ci prison yi mu leen dimbali gisoo ko dara tey moom fii ma maa fi chef tey ma wala tey laa lay woon fépp tey. non non bëggu la de man mii la bëgg <laughs> ah ndey kay tey ngay gis doo mës a gis tey laay tey kay lekk booy bàyyi di lekk. non man moom du ma ko sori fi lay tax parce que moom ci moom laa bokk. amul benn problème man man ci moom laa bokk du ma ko sori de. góor baa jigéen teewlu ma na bekk buur bi coobareem la yor na bekk bi faalu lu ma yuridu mooy waxa na wuti yàlla soxna ay dasaaliw mi la fi dogal dal bu yàlla taala ma di jal matt sànni caagan di jéem a fay sëñ be joo ko def sampam kanam la jëm jërëjëfe cuun jërëjëfe cuun jaajëfe cuun jërëjëfe cuun jërëjëfe cuun jaajëfe sëriñ beete mi ko def moo ko sañ mooy dogal lu ko neex tey jërëjëf jërëjëf